ya salaam Cheikh Bamba yaa am salaam bare woote am ngandam siyaare naa la Bamba yaay kiraam doy ngaama Cheikh Bamba yow yaay nga ngi yamam yaa ma gënal wurus beeg ngalam gàcca ngalaama Bamba am ngandam Bamba yaa sa kanam te yaa sa ginnaaw yaa déggoog sa borom loo ko ñaan mu def loo ko wax mu ne waaw Seex Bamba sa waay du ñeewaay kaneen du tiit ndax lu ñu ragal nga nekkoo ca sànni ba dun koo gisaat yaa jox cër tariqa yeeg yeneen këru diine way nga Isa ibnu Mariama fa nga bokkeek Alaaji Malik Si du fii bàyyi ndax saa yu ma jaaxee gis la su ma dee gor kon naa seede yàlla may na la Seex Bamba yaay kiram yaa dem ñëw te gaañoo kenn gaañu la yaa wax kenn waxalu la jaloore borom moo koy nettali waay li gën ci man yow yaa ci fees mooy xol bi daray àdduna safatuma lu ma ñàkk muñ ko doyloon na sa borom Seex Bamba Seex Bamba yaakaaru jaam ñi Seex Bamba Seex Bamba yaay leer ci yow la ni naa yaakaaru jaam ñi murit Tijaan Xaadir ak waa Laayeen bamba ñépp la fi nekkal firnde la doon na tey masalikul jël fusti tagg sala sent ak doomam ja ba àgg ca ya umaroxil maliki mbégtem basiru leeram gaa ngay wondeelu sarna ba dugg Makka ne leen ko jàkk mooy al muntaxa bamba yërmande la yërmande gu ñépp bokk moo fi dàqa saytu mbokk masulaatal di xajale day dajale nanda ba am ndam daya fi boppam doonul ku ni xam te moom lanu bàyyil na boppam ngir noot ba jox yàlla léppam moom ak yoneenam jàmbaaru lislaam moom la nu àndal lu ab murit am am na ca wàllam kenn dootul mel ni yaramu jaam yi barke bëggam mooy murit leer na murit yi ilaahi alal habibi jërëjëf Serigne Touba sa jëf na ko yàlla fay jërëjëf Serigne Touba